dafa simple parce que 72 ba qui mais bi daf ci baré at yi rizier yi perte baykat yi perte perte problème bi gi borom kër gi koy def nañu compte d'exploitation def nañu rizier yi def nañu compte d'exploitation Sénégal fi gouvernement bi ñoo xam ñoo

ñu toog ak ñun ñu seet liy régler ceeb bi parce que ceeb bi dafa bare problème dafa metti banque bi soxla na crédit am seen yaa ngi nii kenn fayu ko CMS ngi nii kenn fayu ko yeneen banque yaa ngi fi daw seen xaalis du jeex ci baykat yi mënul ñu ko jot lok Afrique ngay jooy xaalisam mënu ko jot kon baykat yi sonn nañu gouvernement bi na ñëw waxanteeg baykat yi vale bi investissement bi bare na moissonneuses yi bare na tracteurs yi bare na mais ceeb bi doxul comme doxul nag nañu toog ñu seet nu ñu réglé ceeb ceeb dafa bare problème